est-ce que ce sont pas des idées qu'il faut développer plus que popularisme bi nga xam ne ñu ngi koy gis. non non non ñooñu amul ñooñu la Pastef ñoo non non non ñooñu la Pastef di waxal ñi nga décrire nii ñi nga décrire nii ñooñu la Pastef di waxal parce que tey jii euh, acteurs économique formels yi maanaam ñi nga xam ne dañoo am ay salaire comme yow comme yeneen fonctionnaire comme ñeneen ak ñeneen ñooñu ils sont très peu nombreux. maasu ñi nga xam ne ñooy indi xaalis ci kër gi ñooy dundal njaboot gi mooy secteur informel bi mooy artisan yi mooy agriculteurs yi éleveurs yi ak pêcheurs yi donc mooy d'abord le secteur primaire lan lañ ci wax ci horizon deux mille cinquante bi gis nga ko donc lan lañ ci wax sur les cinq ans mooy lan mesures yi da ngay jël d'abord les mesures phares bi ñu falee le président ba Bassirou yi Diakhar constat bi moo doon. Euh, monde agricole bi dañu leen daan jox ay intrants yu amul euh, j'allais dire de la valeur amul qualité bu manqué de qualité résultat bi wala conséquence yi mooy rendement yu faible par rapport ak emblavure yi ñuy jot a def donc premier premier constat deuxième constat bi mooy euh, ñu war leen a fay ñuy xaar yow ki gën a néew doole liggéey ba pare ñàq ba sonn nga am loo ko fayee nga téye ko jugal ko ci leneen xam nga loolu tamit yeneen problème la bi ñu ñëwee lu ñu def 42 milliards yi nga dégg fu ñu dugal dans le monde dans ce monde là c'est pour justement ñu mën a purger lépp loo xamante ni ay bor la woon yu leen tënkoon pour mën leen a may doole ñu mën a am am souffle nouveau mën na song activités yi mën produire ndir mën nit ñi mënoo jëriñoo parce que justement ñun suñu balance commerciale équilibre bi la ñuy tendre parce que balance commercial wu Sénégal dafa déficitaire ba mu ëpp d'accord ñun li ñuy jaay biti réew te bëgg di ko jaayante ak waa biti réew dafa néew te la ñu fay jëlee bari ba ci ceeb te mun ñu mun ko fay produire décision wu Sonacos yi ngay dégg nii mais ci ñan ñoo ci nar a gën nar a gën a jëriñoo mais baykat yi ak ñi nga xamante ni bii artisan la ñu ay commerçant yu jeune commercant la ñu yoo xam ne ñoo exportations. suspendre les exportations pour satisfaire la consommation locale. mais xam nga euh, maa ngi jéggalu ah. le problème mooy. Hmm. Euh, des fois le le le le le le paysan bu doon bay gerte. moom bu gisee benn chinois di ko jëndee gerte bi kilo trois cent cinquante yow nga bëgg ko jëndee deux cent cinquante. facilement loolu ancien régime bi ah, ah. mais on va voir non déjà mi ngi agoniser loolu moom voilà Sonacos mi ngi agoniser et comment non yeggaguñu foofu non non attention yeggaguñu foofu moi je suis en train de vous parler de restructuration secteur bi secteur agricole bi muy secteur primaire bi nga xamante ni mooy produire li ñuy dundee ceeb bi ñuy dundee dugub ji mboq ji ak yooyu mboq li ñuy importe ci mboq fii du jeex du xaaj te tool yeeg ne fi ne fi ne gaañ ñu war koo mun a produire donc réduction déficitu balance commerciale may wax fa lay tàmbalee ñu produire li ëpp ci li ñu soxla pour di ko jëfandikoo donc bu buñ ko defee yenn ci li ñuy soxla ci devise maanaam dollar parce que comme àddina bi si ci dollar lay dox wala euro. d'accord donc te saay booy convertir sa CFA nga am loo ciy perte mooy li ñuy tuddee les pertes de change donc saay booy jëndi marchandise biti réew da ngay perte saay booy jaayi march sa marchandise biti réew danga nga ciy perte aussi te très souvent problème mu qualité day am ci li nga xam ne moom lu ñuy jéem a importer moo tax ñu ne d'abord ñun nañu régler sunu problème mu consommation interne de sorte que ñu booster sunu agriculteurs yi sunu éleveurs yi ak sunu pêcheurs yi pour ñu mën a produire lu gën bari ci li ñuy soxla bu ko defee li ñuy jéegaane biti réew dina wàññiku bu ko defee da ngay gis ne dañuy réduire le gàpp bi dox suñu diggante entre exportation yi nga xam ne dafa faible lool ak importation yi nga xam ne dafa rëy ba dinu étranglé donc état bi foofu boo ko xoolee ba ci biir dafa am na lu muy perte parce que saa yu importation amee day am ay taxes yu muy tuddee yu muy percevoir tax de port yi ak aéroport yi da ci am lu mu ciy percevoir mais loolu perte loolu te régler le, problème de, euh, la production intérieure moo gën fuuf parce que da ngay dooleel say artisan ak sa monde bi nekk sa biir réew te yore sa say kenoo économie donc loolu mooy benn xalaat bi nga xamante ni bi ci horizon deux mille vingt euh, horizon deux mille cinquante daf ci nekk nga xam ne dafa bokk ci objectifu quinquennat bi deux mille vingt quatre deux mille vingt neuf danoo war a sentir déjà boobu évolution mais juróom benn weer lañ fi dafa gom tàmbali juróom ñaareelu weer wi benn nawet amagu fi boo xamante ne Pastef moo ko géré amagul. pour nga mën a évaluer diggante Pastef ak secteur ak ak monde agricole bi monde paysanat bi balaa nga koy mën a évaluer ñu dem ci nawet ba génn ci nawet. waa allez aussi bi laay wax allons ma dégg bul wax loolu aussi parce que euh, euh, euh, falluñu la pour def distinction entre nawet yi nawet bi lim lim non nawet bi li mu généré lim li mu fi fekk ah. ak difficulté yi mu fi àndal mais c'est l'occasion de corriger ça pour que nawet nawet ëllëg mais affaire bi day ratax xam nga non si xam nga tey jii xam nga xam nga non vous pouvez ne pas être d'accord avec moi mais c'est une question est-ce que tamit mm-hmm. nawet bi li nga xamante ne géré wu leen ko c'est vrai da ñëw ak des difficultés da ngeen ñëw fekk fi ay yëf da ngeen ñëw fekk fi loo xamante ne aujourd'hui non dafa ñëw da ngeen ñëw fekk fi yoo xamante ne c'est difficile pour vous mm. de vraiment ngeen ni fii lañ ko mën a tàmbalee mais c'est possible pour vous de corriger cela pour que nawetu déwén mais day fluide. ba nga xamante ni dinañ ne <laughs> vraiment. yow yaa ngi may jàppale ci li may wax yaa ngi may jàppale ci li ma wax. nee naa nawet laay bañ déedéet déedéet déedéet. gérer wuñ nawet bi loolu laay bañ. ma wax. parce que on vous a pour gérer nawet bi au contraire waaw baax li ma lay wax. dama ni bi. Euh, bi ñu falee président Bassirou Diomaye Diakhar lu mu def ak secteur secteur secteur primaire bi mooy régler seeni i arriéré li ñu leen yoral. tudd naa fi 42 milliards wala tudduma ko. waaw ñooñu ñoom ñoom lañ ko yoraloon jox nañ leen ko ngir ñu mën a waajal seen nawet. fi may tuddee gérer nawet mënaguñoo évaluer Pastef ci nawet mooy par exemple effort yi nga xam ne ñu ngi koy def boobu ba léegi joxe engrais dugal ci armée bi d'ailleurs ne ko yéen a koy yóbbu ba mu yegg. pour engrais bi wa ah, moom laa lay expliquer nii foo laa commencé nii engrais si intrant yi la commencé ci la bokk donc bu fekkente ni yaa ngi yóbbu engrais nga ne sama euh, service de défense laay jël parce que am nañu équipement nécessaire dootuma dépenser ay xaalis pour louer ay camions yu may yóbbul sama armée am na matériel donc moom laa koy dénk mu yóbbul ma ko ba pare nag dal ne général Diop dama bëgg engrais bi yegg fi mu war a dem te dinañ ko monitorer dinañ def benn suivi évaluation pour loolu donc nga gis ne paysans yi ren jooyu ñu engrais bu jogu bu yegg siwul non seulement dafa yegg si à temps ak des quantité yu gën a bari waaw non déedéet déedéet déedéet dafa yegg si à temps quantité yu gën a bari ak qualité yi ñu soxla xam nga engrais bi ngay def ci faro maanaam ci rizière pour bay tool pour bay ceeb bokkul ak engrais bi ngay def ci tool pour bay gerte mbaa dugub du benn xam nga yooyu variance yooyu variété yooyu yëpp dafay am mm-hmm. bu njëkk daan nañ ko tey def ko exprès xam nga dañ daan xaar ba nga xamante yëpp baa ngi waaj a euh, tardé mm-hmm. bu ñu ko joxee baykat bi da koy utiliser mm-hmm. daawul sax jël temps parce que soxla woon na dafa jàmpoon léegi nag moo tax ñu teel ko yóbbu gis nga li ngay wax nii dama ne au contraire man ngay jàppale ci li ma doon def jéem a comme argumentaire bu ma waxee ne géré gu ñu nawet dañu évaluer nawet mooy effort yi ñu def nii yëpp waajal nawet bi ak effort yi ñu def ci biir nawet bi bu ñu génnee nawet wii nga xam ne mooy nawet wu njëkk bu Pastef géré voilà lañ koy mën a évaluer bu ko defee ñu mën ko tëkkale waa moom non non moom laa koy wax ni mën na ko bu amee nawet nawet bu njëkk boo xamante ne bi mën nañu ne est-ce que def nañ ci dara mooy wii nawet donte ne dafa cate donte ne dafa cate moo tax fii dinañ ko mën a évaluer quand parce que def nañu ay effort yoo xamante ne bi gëm naa ne dina porter ay ay fruits am waaw loolu moo walal engouement bi ngay gis les maires qui viennent la ay yan maires lañu ce sont des maires ruraux yoo xam ne seen base il a dit la porte mais bien maires yi ba seen i base ñoo leen di won ni ñun kat suñu activité nii lañ ko daan dundee nii lañ daan nii la gouvernement bi daan doxalee ak ñun mais tàmbali bii dal na suñu xel xam nga dafa am ay acteurs yoo xamante ni boo leen gisee mu nekk de véritables revendicateurs ku demee ni Aliou Dia bu mbëlëxee hmm? nga xam ni ku engagé wu la ah mi jege na El Malick lool sax <laughs> donc Aliou Dia bu mbalaxee bu mbalaxee ah, ah. dem si euh, euh, euh, candidat pur bi ah, bi jëlee waaw donc Aliou Dia bu monde rural bi laay wax noonu ancien député c'est un diplomate à la base instituteur la gis nga carrière u nit ki nu mu évolué mu doonoon koo xamante ni ku amoon engagement bu rëy rëy bu yaatoo yaatu bu tense bu intense pour le monde agricole boo demee ba gis certaines références comme ça de ce monde nga gis leen ñuy approcher le Pastef nga xam ne sa présage de quelque chose de bien man am naa yaakaar ci ni lii c'est le balbutiement départ bi la parce que da da nga falu ci condition yoo xamante ni condition wu xeex la ñun mënuñu fi woon dugg man bi may ñëw sama kër dañ doon jooy boo demee doo ñëwaat boo demee doo lii doo li si des bu nga yegg si aéroport fekk say xaritu magistrat yi ñëw say xaritu avocat taxaw parce que tout le monde a peur ñëw rek ñu jàpp parce que ça dure depuis des années wax naa la ni que Pastef par exemple ñëpp xam nañu ne Pastef dooleem mi ngi soqi ko ci diaspora bi